na fi ndekete lépp xale koy def. Bamba Dieng lan la xale boobu. meilleur mais Sadio ama mu neex ma moomoo. saajo doo ko gis ci dara. doo ko dégg ci dara. Sadio ci yar gi. ci dal gi. Sadio dëkkam hôpital yi. ville yi lu ne def na ko fa nag lu ne tabax na ko fa. école macha allah meilleur. gisuma ko ci wër dégguma ko ci dara yu manqué xale bi yal na ko yàlla fàccal. ma ko soxna su baax nag. Ah, jot na nag ah Sadio nag dafa sama rakk la de Sadio daa booy la de na fi. Sadio ah. nag sama rakk la. non sama rakk la doroog du sang lay seetaan de weeru février lañ ne bëgguma problème. non mais Sadio mooy sa rakk Saint Valentin. Sadio la moomoo. sama rakk la euh, léegi bu pour ñu topp ci même mouvement xam naa dañuy ànd ak parce que bu ñu toppee mamito bi xam naa xam naa dina metti jéy dina metti de ayca jox ma genre bi ayca genre moo xamee Mohamed fi alors euh, comme li ñu doon wax léegi rek ñëpp xam nañ ñooy démb Sénégal ak Burkina ñoo daje Sénégal daal day gagné 3 à 1 but pour euh, pour le Sénégal donc ñëpp gis nañ ni Sénégal démb yëngu na lool lool lool yaakamti nag egg ba jour J euh, mooy final bi su ko defee ndam li daal di fi ñëw ndax nam nañ ko bëgg nañ ko lool lool lool lool depuis Coupe d'Afrique tàmbalee ba tey lii lay di Sénégal mosagul jël li nga xamante ne moo di la Coupe d'Afrique des Nations alors nag bi Sénégal qualifié dëkk bi yëpp a waaye jot nañ dem ci yenn gox yi hmm. daal day xool uh, yenn ci ay réaction lu ci mel ni palais ak uh, fi nga xamante ne moo di les quartiers de Dakar bu noppee rek ñu dem xool daal di dellusiwaat ci plateau bi pour gën a yaatal Here we are, hope to make it. Hopefully we will make it. ñoo ko gisandoo waaye euh, les deux premières euh, vidéos nag gis nañu ki nga xam ne moo di El Hadj Ousseynou Diouf ak euh, Fadiga nañu stade fële ca Cameroun ginnaaw bi Lions yi daal di qualifié li nga xamante ne moo di final ba ñu dooree ki nga xamante ne mooy Burkina Faso ba noppi ñoom nag ñu ànd nag mbégte dem di jubilé face ak ñi nga xamante ne moo di les Sénégalais yi fa demoon di soutenir ñi nga xam ne moo di les Lions du Sénégal mu nekkoon nag mbégte bu mag a mag a mag a ñi fi des nag ñi jotul dem dem nañ ba palais di jubilé ki nga xamante ne moo di suñu njiitum réew di président Macky Sall ne encore une fois rek nii li nga xam ne Lions yi noonu lañ joué démb ak yeneen joueurs ci topp ni ko kontaan nañ te kontaan nañ ci li nga xam ne moo di victoire bi face à la Burkina Faso daf sa tujjee. Euh, c'est la troisième demi-finale des CAN bu Sénégal euh, dem. et mhm. finale du moins. Mhm. finale c'est la troisième finale des CAN bu Sénégal dem. et on espère que cette année-ci ce sera la bon et dina ñu indi li nga xamante ni moom moo di la Coupe d'Afrique des Nations fii ci mm-hmm. Sénégal parce que nous tous on est très mm-hmm. Euh, euh de de, mm distinction surtout lu jëm ci wàllum football parce que mosuñu am li nga xamante ni moom moo di Coupe d'Afrique wala dama juum Mohamed mosuñu ko am alors bu ñu ko amee ci atum ren dinañu bégal lool surtout ci contexte bi dëkk bi nekk on est dans beaucoup de stress on est dans beaucoup de conjoncture on est dans beaucoup de polémique on est à la veille pratiquement des des, des élections présidentielles parce que c'est bientôt et cetera kon euh, indil ñu kub rek mooy. Euh, tendre les nerfs waaja la mu waxoon les nerfs sont tendus wala. Ah, les nerfs sont moo koy contréral kon. <laughs> moo koy apaiser moo koy apaiser et on a vraiment besoin d'apaisement en tout cas mhm. bravo au Lion. Mhm. go go go gaynde on espère que dimanche da ngeen ñu gën a yokk suñu mbégte. Mhm. yow foo seetaanee match bi démb. man fii ci bureau bi dama doon liggéey démb. hier c' était mon de travail. ma ñëw fan. ñëwal fan. fu ma ñëw. ci marché bi. ah ma joxe sama sama sama impression. ah d' accord man sama impression xam naa dem démb sax euh, ñëpp jot nañ ko gis. Mm-hmm. parce que dama yuuxu ba sama baat bi dee ah di wax ne que rek peut-être lion yi au début ñoom dañ doon raam jékki-jékki di dox jékki-jékki di waaxu mais actuellement moom ñu ngi daw bu euh, baax a baax ils ont vraiment mouillé le maillot hier. Ah, euh, de ce fait on a carrément confiance en eux euh, di leen ñaanal yàlla jàppale leen ba jour ji ñu xam ne carrément coupe bi lañ soxla euh, ñu ngi ci final naam mais coupe bi lañ soxla et li ñu jot a joué ñu multiplier ko de ce fait coupe bi daal di a ñëw Sénégal. ndax hmm. ñu mën beneen étoile. naa en a besoin. et puis lii euh, dafay xame dafay raffermir les gis ngeen ni ñëpp dañoo dellu juboo koo musuloon accolade accolade nga ko koo musuloon waxal wax nga ak moom démb euh, c' est extraordinaire. démb Sonko ak Macky sax dégg naa déggante ne. mais c' est normal c' est normal c' normal c' est le Sénégal qui gagne c' est le Sénégal qui gagne. waa ji nee na affaire bu nice gel yow dul mos a xalaat xool ngay bisu. waaw waaw c' est vrai tu en profites. tu en profites. ah <laughs> ku na oh, oo c' <laughs> l'oncle mais c'est normal mi xool yëpp a feex ah, ñi la yoraloon bor baal la ko xam nga yooyu dafa neex. affaire yi rax na def moo gagné. waaw. Ah. pressentiment daal Sénégal jël coupe bi ren. incha allah incha allah. incha allah parce que nag ay jàmbaar lañ vraiment démb moom li ñu football macha allah démb sax comme final. ñu nekk ay gaynde pur ñu assuré. Mhm. donc daal yal na yàlla laf cat xeeb dolli. amiin mhm. maman Diallo. na fi. impression ñëpp mooy sama impression rek vraiment yëf yi moom neexoon na trop gis ngeen démb bi fin euh, bi ñu qualifié woon final gis ngeen mbedd bi ni mu feesee woon macha allah côté Almadies côté ville côté euh, foire bi sacré vraiment ñëpp a génn fan zone yi fu nekk euh, concert yi tamit amoon show yi amoon dëkk bi neexoon macha allah man moom sama coup de cœur daal mooy ci arbitre éthiopien bi mooy Tessema Bamlak. Hmm. donc vraiment c' est un très bon arbitre nag Mohamed. dañuy waxante dëgg c' est un très bon arbitre macha allah. sans pression dem arbitre. en la enfant de Bambali. Oh, oh God depuis le début j'avais dit que c'était mon coup de cœur xam nga nag man man moom di seetaan ay match. Mm. mais ren moom xaw ma lu ma ci xiir. xam naa ne que mooy mooy ça sent bon. il nekk da ngay am ki nga xamante ne moom nga gën a faral mais ñun ñëpp yéen la bëgg yéen la ñu mm. fu ñu leen teg. et puis voilà yàlla ndam li ngeen indaale ko ñëpp ñi nga xam ne quitté nañ fii ku ci mel ni Nane Sow Biggi ak ñeneen ñëpp ñi fi jógee daal lay dem rejoindre ñaanal leen ndax bu ñu ñibbisi mu mën a neex n'est-ce pas. Ah, ñun sax ñu ngi yoon bi incha allah. incha allah xam de ba xam ne ba ñun ñëpp ñu dem. <laughs> mu dem daal di daal foofu incha allah. mais li ma ci jaaxal mooy euh, vol tey amul place de vol ah. volu suba bi vendredi bi. xeet na xeet hmm? na na fi nañ naaw dem rek. nañ fii ba dimanche amul place de. <laughs> nañ naaw la ñu rampe dem rek. woote naa sànq doon réservé waaye. am yëpp yokk nañ yëpp prix yëpp yokk fi mu toll nii. lañ ma wax ci prix billet yi de fondement kër la. jarul de kon <laughs> nay toog fi rek seetaan di ñaan yow suñu kurus di ñaan moo ci en tout cas fii wala foofu euh, xam na ñoom xam nañ ni fu sénégalais yi mënti ne mm-hmm. euh, ñu ngi leen di support de maa ngi gis euh, Maroc par exemple mm-hmm. sénégalais yi fa nekk police marocaine bi sax dañu génn escorté leen pour que ñu mën a euh, jubilé en paix xam nga c'était magnifique pour dire que ni Afrique euh, ñëpp a bokk ndey ak bàyyi xam nga mm-hmm. ay image la yoo xam ni vraiment euh, bëggoon naa sax ñu koy wane de temps en temps pour que ñu mm-hmm. xam ni mm-hmm. foo dem ci àdduna bi rek boo demee da ngay da ngay jubóog africains yi parce que c'est la même chose donc ñi nekk Paris Sénégalais yi nekk États-Unis je pense à Bosnia waa Harlem ñi nga xamee ni ñoom démb marché bi ñu ngi ko seetaanee foofu ci euh, restaurant Harlem ci ñoom Boss Niang ak ñoom mm. Rachid ñoom ñëpp kontaan nañu démb parce que li Sénégal li Sénégalais euh, joxe démb ci match bi vraiment dëgg euh, nañ ci ñun nag lenn rek la ñuy wax joueurs yi mm-hmm. finaal ñam nañ ko mm-hmm. ñamati ko coupe lañ ñamagul de coupe la ñu ñamagul dañ ko bëgg a ñam de coupe bi moom dañ ko bëgg a ñam waaw hein jox naa jël coupe bi. non ñun mosu ñu jël coupe. boo def 1960 ba tey. mosu ñu jël coupe indépendance ba léegi ñu ngi ci topp di daw. ma ne ko indépendance ba léegi ñu ngi ci topp di daw. ñoom bokkaan de topp nañ ci dem ba ndeysaan noppaliku nañ. génération 2002 luñ ci mënoon def nañ ko ci. Hmm. génération bii nag ñun yéen lañu yaakaar ni di ngeen ñu andil coupe bi. incha allah ñuy fàttali de. ah vraiment ah, vraiment étoile bi bëgg nañu ko coupe bi dina ñëw. bëgg nañu étoile bi. te yéen xam ngeen ni ñun bu ñu leen waxee ni dinañ doxee jas ba Dakar. Mhm. war ngeen koo gëm. et eh, bëgg naa moomoo ñu may ma tuuti ci kanam peut-être MD ci temps fortu euh, Zoom CAN bi nga xamante ni moom mooy am fii ci kër gi mhm. di daw tous les jours une heure avant et une heure après le match mhm. euh, Père Mbaye Ngoné gis nañ ko démb mu def ay exploits yu légendaire ci li nga xamante ni moom moo di qualification Lions yooyu noonu yëpp dinañ ko partagé waat tey ak téléspectateurs yi pour ñi nga xamante ni dañ ko raté démb en tout cas mhm. mbégte dong lañu yeewoo tey et mbégte mi yàlla na continuer ah. ah. waaw ne nii abonné ñun ñun ñëpp ci euh, réseau réseau boobu. bu daa bëri jox sa beneen yi. réseau kontaan kontaan continué kontaan continué. waaw <laughs> ngir yàlla bu leen ñu désabonné dimbali leen ñu rek. dimbali leen ñu rek. fii ba dimanche. Mhm. c'est la fête. Mhm. tey incha allah dinañu feete mais yéen fi ngeen nekk bu leen feetu yéen liggéey leen rek. liggéey leen rek bu ngeen ñibbisee leen ba ñëw. waaw.